ñi melo meluñu sax daañu dugal sikk ci xol ñu bari waaye mënuñu ko kon alxuraan gannaaw moom kon mënu ci dara te mooy téere bi nga xam ne mooy indi lislaam te lislaam kenn mënu koo jam ci dara gis nañ ne jam-jam yi ñu daan jam ñëpp dem nañu ba science ak ak technologie ak seetantal ak recherche àggali leen ci ñu xam ne loolay yëpp nekk te ñàkk xamoon ñu doon ko dingat ñàkk a taxaw ñu ko di nga waaye xam nañ ne lii rek mooy yoon wu jub dem nañu ba gis loolu ba umbatul kenn kenn kenn tubaab yi complexe de supériorité jàpp leen maanaam comme technologie ak science ñoo ci gën a avancé fuuf jullit ñi ndax jullit ñi loolu moom euh, lu cheyun tabii yi lu yàlla def lu naturel moo di islam fa mu tàmbalee désert la désert àll boo xam ne amul mbay amul benn civilisation amul cuve amul dara nga xam ne jaxasoo wu ñoom nit ñi ndax turuqul muwaasalaat yi dafa maanaam euh, moyen de communication yi jafe jafe na nga xam ne booba essence feeñagul foofu la l'islam dale topp saxaara bi di ñëw di ñëw di ñëw ba bi mu àggee Espagne Portugal waa jullit ñu conquérir ko dugg góol booba France góol la tuddoon ba ci xeexu Poitiers boobu Charles Martel dajale woon européens yi ñu xeex ba delloo ko moom ci Italie lu bari foofu yëpp fi ñu jaar fépp foo xam ne ci li ñuy tudde ceemoon la léeg ñoo xam ne ama amuñu doole ci saahir amuñu alal foofu la lislaam jaar loolu moo tax jullit ñi tubaab yi xeeb leen ci wet googu ñu ne nag ñi nga xam ne nii lañ leen rame nii lañ leen moome woon nii lañ leen xeeba duñ dellu nekk seen i taalibe complexe boobu jàpp tubaab yi complexe d'esprit mais teewul xam ne ñu lislaam doo ngay dëkk ñu ne nag nanuy def ba nit ñi ñu fanq seenu dugg ci lislaam ba dootuñu dugg ci lislaam loolu nag ñu dugal fa seen loxo fu ne ñu seet ko xamuñu li ñuy def looloo tax ñu dem ba àgg ci def mu amara boo xam ne dañuy confectionné livre boo xam ne dañ naan nañ attaqué alquran kooku ñu di ci seen yi benn nañ seet réaction julli bi ndax ëllëg si biir buñ attaqué woon l'islam ouvertement leneen ci leneen daañu réagir wala déet di seet ba xam naan la ñuy def ñaareel bi nañ seetlu seen i aqliya ba xam lan mooy doon seen position ci buñ defee noonu ñetteel buñ ko defee dara yënguwul mën na noo yokk mu seet ba xam ñoom seen bopp seen bopp sax leer na leen ne li ñuy wax moom mënu la yàq dara mënu la yàq dara ndax képp koo xam ne jullit nga nga xam ne kee xamul dara ci lislaam te ku bari lislaam ne di bind dong la kooku nii yëfar yu njëkk yi daan waxee rek naan yonent Muhammad euh, dof la dof la ak jinne ko jàpp ak loolu rek ak li nga xam ne tubaab bi moyen âge ci gannaaw bi bi ñu umpalee cheikh umpale umpale lislaam umpalee arabie saoudite dañ daan wax naan dégg nga épileptique la na ma yàlla baal lu ne ñu di ko sos yu mel noonu dong la kooku moom du taxaw du sax jamono du yàgg te du def dara waaye nag jullit ñi war a wane seen position loolu tax na kon bi ñu defee loolu jullit ñi di seen position lu ñu lu ñu def lu ñu yëg loo xam ne xam nañ ne jullit ñi kat seen diine itteel na leen te jaral na leen lu nekk jaral na leen dee jaral na leen lu nekk léegi àgguñ foo xam ne nit ki day jaay ba kanam waaye nu won leen ne ci nii ngeen defee rek yëg nañu ne lii ngeen def rek duñ ko mën a toléré mukk te dañuy jëf ñuy tam mooy ñi nga xam ne tontu nañ ko li ma xam ne foofu gàcceel na mboolem ñi ko daan xas ak ñi ko daan wax naan si àll bi ñëpp lañ moom gàcceel na leen. dafa mel ne que dafa mel ne que moom doo ngay jullit loolu ñaaw na dafa mel ne moom doo bëgg lislaam dafa bu la ndax li muy wax yépp du ci science du ci histoire du ci xam-xam tegu ko fenn ñetteel ba ñaareel ba mu wóor ne jullit yépp xam nañ ne nit la ku dof koo xam ne kii li koy yoot xamu ko ndax fu mu jéego bu mu jéggi mën naa dee ñu xamal ko loolu ba mu dugg ci boppam ba mu xam ne kuy fo na nga foye dina feneen jëmee ko ci te bu ko jëmee ci lislaam loolu ci loolu rek laa ciy tontu comme comme laa ciy bari na sa guddi na asalaamaaleykum wa rahmatulah buur bu xam ne nii laaj yooyu li tax ñu ko mooy dafa dëppoo ak jamono ak li xew waaye sax doonte génnoon na thème bi euh, beneen a ngi nii bu niroog loolu moom it xaw na génn thème waaye yitteel na jamono yitteel na lislaam ndax yépp ci attaquement lislaam rek mi ngi laaj lan mooy euh, position lislaam ci yemale njur mi nga xam ne nii moo xew léegi ci àddina te yonent sallallahu alayhi wa sallam doon wax ni yéen jullit yi jurante leen ndax damay puukaree woo ci seen jëmm yi ëllëg ñu ne nag na yem loolu lu ciy position islam asalaamaaleykum waaw bari na lool ay problème yu posé problème yi jamono moo ci gën a bari ndax loolu lépp toujours li ñu waxoon rek nasiha dajjal ak dikkam day dikk ba nu nekk ca nit ñi di ko séenoo jëmm duñu gis jëmm ja fekk noo ngi ci fekk maanaam état d'esprit la maanaam euh, melo aw melo la ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne moom xaal su fekkee la hadis yi masih dajjal bu dikkee jëmm ju fatt lay doon benn bët lay am benn bët lay amee day njool bu dikkee su mborom daf koy dooleel